waaw man maa ngi tudd Yves Lamine Ciss man may maire commune Morlan waaw dem la di gërëm waa presse bi mais di ñaan yàlla tamit euh, yàlla baal ko baakaaram yi xaaree ko aljana Ousmane Tanor Dieng de man xamoon naa ko bien sûr balaa may dugg politique mais surtout mën naa wax ne bi ma duggee politique 2005 ci laa ko xam xam maanaam parce que moom moo ñëwoon jiite meeting sa meeting bi may dugg politique. en 2005 mais surtout loolu bu mu passé tamit voilà daan naa liggéey ak moom bu baax a baax daan naa ko seet si moom daan na ñëw Morlan vraiment nekkoon na koo xam ni ci wàllu en tout cas liggéey ci biir parti socialiste vraiment yóbbu na partie bu fu kawe ndax yéen yëpp xam ngeen ni 2000 parti socialiste dafa daanu mu daanoo presque voilà mel ni bato bu toj ñu ñiy génn fii ñiy génn fii mais moom mu téye bato bi di ko def ndànk-ndànk di dugg Sénégal di génn di dugg di génn ba tegaat parti socialiste ci tànk yi ci ñaar tànk vraiment loolu mérit bu mérite la ci moom mais surtout moom dafa doon koo xam ni ñun mën nañu wax ni dañoo royukaay ci ñun ndax Ousmane Tanor Dieng dafa teyoon voilà du raawloon wax lu ëpp moom vraiment lépp lu muy wax dafa nekk loo xam ne rek liy jëmale Sénégal ci kanam moom mësul wax ay safaan mësul wax secret d'état yooyu du ko wax mukk dafa den koo xam ni euh, en tout cas ñun ndaw yi ndaw Sénégal en général dañu war a roy ci moom kon vraiment Tanor man sama wàllu bopp maa ngi koy jéem a roy xëy na mënu ma àgg fa mu àgg mais maa ngi koy jéem a roy parce que dama gis nii dafa teyoon du wax lu ëpp Tanor du dugg ci lu lu mu xamul Tanor moom dafa aussi amoon relation yu baax ak ñëpp Tanor boo xoolee kër kër diine yi yëpp daan na fa dem man daan naa ko gunge euh, euh, gàmmu Tiwaawoon parce que chaque gàmmu ñoo doon ànd euh, Tiwaawoon mais dañuy dugg ci kër diine yëpp amul baaraas kon boo ko bien sûr mosuma dem Touba mais daan na ànd ak ay ñoo xam ne Touba tamit te wóor na mi ni nu mu doon def Tiwaawoon noonu def Touba. kon noonu doon def aussi Ñaseen yi noonu def aussi kër catholique yi maanaam tanoor amul buntu man tanoor moom maanaam ku bëgg rek mën am mën nga mën nga jot ci moom vraiment tanoor ku simple la ku xam ni vraiment dañ koy ñaanal yàlla en tout cas encore une fois c'est une grande perte pour le Sénégal mais surtout ñun ñi xam ni ñoo nekkoon parti socialiste ñun xaw nañu ci tuuti ba am nañu yaakaar ni yàlla dinañ mën a jàppale. bon loolu je pense que quand même yàlla li muy def xam na ko tanoon déjà yéen baat baat yi mu mujjee wax bokk na ci baat public yi mu mujjee wax bokk na ci maanaam ubbi nañu bunt yi na ñëpp ñëwaat defe naa ni. loolu loolu la ñuy war a ñëpp saisir ñi nga xam ni demoon nañu Tanor nee na baal nañu ñëpp di ca ca safaan bi amoon coow bi amoon nee na yooyu yëpp jeex na na ñëpp ñu ñëpp ñu war ci parti socialiste. je pense ñëpp bu ñu dégloo déggoo baat déggee baat boobu ku ne war na mën na delluwaat parti socialiste nekkaat benn ñu dem kanam. je pense que loolu euh, loolu intérêt ñëpp la parce que kenn mënul dem wala naan man parti socialiste la ku nekk dem ak morsoom loolu mënul nekk parti socialiste benn la. nañ ko def benn comme ça ñu mën a ñëwaat ci maanaam parti yi gën a biir mag ci biir Sénégal je pense que bu dee ñëpp ñëwaat nañu am naa yaakaar ni parti socialiste mooy bu nekkul premier mooy nekk deuxième parti dans le Sénégal mais loolu na fekk aussi ñu baalante raxas xol yi te xam ni aussi voilà ñun ñoo nekkoon ñoo nekkoon am coow suñu biir coow boobu dafa war a jeex defe naa ni loolu mun bu dee fekkee ni ñëpp ànd nañ ci en tout cas man bokk naa ci ñoo xam ne en tout cas maa ngi woote pour que ñëpp vraiment raxas xol yi ñu nekk benn xam ni ñun suñu ëllëg parti ci ñun la dépendre bu dee ñun bëgg nañu partie bi jëm kanam nañu bennoo bu dee aussi bëgguñu bëgg nañu aussi des ci ginnaaw nañu xaajaloo je pense loolu laa amoon li may wax ci fànn daal boobu.